bu ko defee ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala dañ ci dal di sukkandiku ci yooyee dars ci li nga xam ni mooy tër ak mbind ak njàngale yi nga xam ni rot na ci borom xam-xam yi ñu mel ni al cheikh al allaama al faqih muhammad bin salih al uthaymin كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز الشيخ الفوزان وغيرهم أغنينا من اليوم وكذا في كتاب بلغي دانكي تامو من مو خمني من متنكلا بو الشيخ العلامة الفقيه muhammad bun saalih al uthaymin daf ko ci daal di bind lu jëm ci wàllu koor mu duppee ko nubdatun fi siyaam maanaam ay pàcc wala ay dogit ci lu jëm ci wàllu koor muy ay jukki mu nekk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 دالي لف على النبي وعلى آله وصحبه من لينا لطن كل رك كي أي جكي كي أي كر كي أي تنف كي لنغا خمين تنيني مموي كور أتم أجيب nit ñi seen axwaal maanaam xaaju nit ñi ci koor ak yi yàq koor ak yeneen njariñ yeneen meññeef yoo xamante ni ni daf ci balloo ci tënk bu ko defee loolee lépp nag ci tënk ci gàttal ndax léegoo léeg ab euh, mbind dafay laaj gàttal ngir dégg-dégg bi it mën a àgg mu mel ni jamono yu weesu defoon nañ ay mbind ci koor mu mel ni dañ ko duppe woon waajal weeru koor foofu it romboon nañ fa ci lu bari ci ay atte yu aju ci koor ndax xam ngeen ne dañoo taamu woon téere boobu di fiqhul muyassar ñu jëloon xët wi nga xam ni moo aju ci koor doon ci nafar ak di ci fàttalante bu ko defee borom mbind mi dafa daldi tàmbalee ci tomb bu njëkk bi firi li nga xam ni mooy koor mu ne assiyaamu koor huwa taabud lillahi taala bi tarkil mufattirat min tuluci alfajri ila gurubi shams mu ne koor daal bu ma la koy tënkal bul fàtte ni moom ci mbind mi dafay doxe doxinu tënk maanaam gàttal loolu lu am solo la wax nañ ne gàttal googu bokk na ci njëriñam dégg-dégg bi mën a àgg waaye tamit dolli ci ne jàpp bi mën a yomb te dëgër te sax kon ci tomb bu njëkk bi mu ngi ci waxe lan mooy koor mu indi firim koor koor li muy tekki maanaam définition wu koor ci sharia ci indin woo xam ni daf koo tënk waaye nag tënkin wu am solo tënkin wu am solo waaye buñ fàttalikoo ko ci làkk am na luñ ca junjoon ca dar siy weesu woon dar jiitu woon li muy tekki ci làkk mooy al imsaak téye nga téyewu ci dara ma ngoog téye sa bopp ci dara ma moo tax bu ngeen xoolee <clears throat> koor ci boppam am na ay façoni koor ay fànni koor yu bari am na koor yoo xam ni kooru kooru paj la maanaam kooru wér-gu-yaram nga xam ni nit ki day téye boppam ci lekk wala mu am nu mu téye boppam ci lekk li ñuy wax monojet maanaam téye sa bopp ci yenn lekkin yi ak ci yenn jamono yi nga xam ni bés bi fukki wax waxtoo ñeent yi da toog rek doo ko lekk mais danga fexe ba tënk lekk gi tënku ko ci fànn gi waaye tënk ko ci jamono yi mu nekk tënk goo xam ni day wàññeeku lool masalan nga jël lu mel ni orange di ko lekk ci lekkin woo xamante ni nii day tënku du bokk ak na nga daan lekk bu njëkk waaye tam am na lu wax le jeûne sec maanaam koor goo xam ni moom day wow koŋ dara du jàll ci gémmiñ gi bu ko defee nga téye sa bopp ci lekk loolu ci ñi nga xam ni ñoo ngi ko doon expérimenté wax nañ ni bari na ay njëriñ yu baaree bari yu ci nekk ci wàllu wér-gi-yaram waaw ba am na sax ay gëstukat yoo xamante ni def nañ ci ay gëstu yu yaatoo yaatu ma ngoog ay gëstu yu yaatoo yaatu di wone njëriñ bi nga xam ni mi ngi ci koor ci wàllu wér-gi-yaram loolu lu am solo la loolu kon benn aspect la ci koor góor gi mu ne kon افكار في شريعه موي هو التعبد لله مانام جامو يالا مانام جامو نيل يالا كون لو ني جامو يالا لا سغاكو لو ني جامو يالا لا أه، بو خوله موم شيخ عثيمين تي دوخالينام دا فاي دوخه spirituellement ci walu diina doxin wu am solo moy ne mom ci ay définition da fay fexe ba li nga xamné moy aspect wu jaamu gi da ci feñ aspect wu jaamu bi da fay feñ da ci fess lol ngir ndonga li déglu mën a bàyyee xel xamni ci la muy sóobu jaamu yàlla la ndéem jaamu yàlla nag war na bàyyi xel charte ya nga xam ni ca la jaamu yàlla di tënku te muy al ixlaas mu mutaabaa sell mu war a sell ak it defin wa dëppoog na ko yonant bi jàngalee waaw lépp loo xam ne jaamu yàlla la rek dafay tënku ci ñaari ci ñaari charte yooyee bàyyi ko xel bu baax sell ga maanaam def ko te yàlla tax ma def ko ngir dab sa ngërmandik boroom ndax mooy kilo ko sant waaye na koy defee day dëppoog na ko yonant bi nga xam ni moom la yàlla yónni jàngale ma ngoog kon mu ne la attaabud lillaahi jaamu yàlla la ngay jaamoo yàlla mooy lan jaamoo yàlla lan bi tarkil mufattiraat ci bàyyi kon gis nga bu ñu bàyyee rek bu ñu waxee bàyyi rek téye sa bopp daal dinay dikk ba mu waxee <clears throat> jaamoo yàlla yéene day daal di dugg bi ne bàyyi tamit téye sa bopp day daal di dugg te xam nga ni ñaar yooyu ñoom ñooy ñaar yi pilier yi nga xam ni moo téye koor yéene ja yéene ja ak it téye ba ngay téye sa bopp ca ya nga xam ni day dog koor mu ne kon ci bàyyi mbooleem luy dog koor loolu nag ci ban jamono mu ne la ko dalee ca min tuluuxil fajri ca ba fajar ga fenke bi fajar xare manam waxtu fajar bim joté ila ghurubi shamsi ba jant ba so kon koor dafa am waxtu ku islam dafa am waxtu la ko lako la fajar ga jot fajar jot fajar gi fajar bu dëggu gi ba jant bi so sowu jant kon foofee la koor ne ci biir weer wi nga xam ni mooy weeru koor kon boo xoolee pirim mi dafa nekk piri boo xamante ni nii pir mu am solo la ñeel kan ñeel jaamukatu yàlla bi mu xam ni kon moom mu ngi sóobu di dugg ci loo xam ni jaamu yàlla la kon ndekete du folklore du caaxaan du programme boo xamante ni nii programme lekk ak naan la jëndi kafteer ndax boo xoolee bëccëg ci la lekk gën a jàppati moo tax ñu bari des nañoo comprendre kooru lislaam des fois sax man damay dégg ñenn ñi nga xam ni dañuy jëfandikoo jeûne thérapeutique dañuy critiquer koorug lislaam mais dégg-dégg ga dafa des la tax ñu koy critiquer nag mooy waaye mazhar bi ñu gis ci jullit ñi parce que jullit ñi ni ñuy woore mooy lan bu bëccëgee doo lekk waaye da ngay préparer wu pour fay bor bi bu guddee nga war a dajale xeetu lekk yu bari lekkandoo ko ci guddi gi bu ko defee loolu day causer ay indigestion ay pic de glycémie ah ay yu kenn xamul perturbation ci sa wàllu wér-gu-yaram du noonu ndegam waxtu bëccëg bi nga xam ni moo gën a propice pour lekk moom lañ la ci lislaam ne la woor ko waxuma laa guddi gi nga xamante ni nag du lekk ko du waxtu woo xam ni jàppandi na dëggantaan pour lekk kon bu exé guddi googu mos lo xamni da ngay mën am katan pour mën wey wéy du lo xamni pour gourmandise la motax bo xolé wéru koor da ngay gis ñeeg yi commencé yépp gëna bari té pourtant ba gi yépp waro ci lek guddi nga am te guddi googu du lek rek nga ci wara def nelaw mi ngi fi noppal sa yax gis nga yeneen système yi nga xam ni nekk na sa yaram ñoom it ñu mën a taxaw ci seen rôle ci seen liggéey mais yooyu yëpp di nga ko bloqué ndax da nga jàpp ni mbir mi fay bor la nga lekk lekk lekk ba sa biir ne teng ba daanaka doo mën a noyyi bu baax bu ko defee boo defoon ndànk koor googu bu la yàlla dimbaliwul pour nga matal weer bi day metti lool ndax da ngay yeewu ànd xërñeeñ gis nga. ma ngoog di woccu rek gis nga ñu bëri ca la ñuy yenn jafe-jafe yi ci estomac gis nga am ay reflux gastrique man sama estomac day yëngu boobaa docteur bi nee bu ma woor mu mel ni kon koor gi moo la causé toor alors que koor gi causé wu la toor yow yaa ñàkk am dégg-dégg man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yow yaa ñàkk am dégg-dégg ci xam dëggantaan yaramu nit ci xam dëggantaan aw lekkin jàngaluñu ko ñu lekkin dañuy jàngal ay géographie japon yu kenn xamul ay kolombeek te ñu jàngal li nga xam ni besoin vital la muy lekkin lekkin l'alimentation ba tax kon gis nga yow dangay ngay daal def noo xam ni day lëmbe sa yaram causé la nag ay jafe-jafe yu bari nga jiñ ko koor gi te fekk ignorance moo ko waral une mauvaise compréhension moom moo ko waral parce que amoo style de bu sain ma ngoog bu ko defee kon xam naa ni dañuy tegali foofu sunu baaraam ci mbind mu njëkk mi ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal ñu aafiya defal ñu taysiir may ñu ñu dugg ci koor gi ci jàmm woor ko ci jàmm woor ko ci muñ ak ngëm woor ko ci sellal ci ragal yàlla ba jële ci meññenteef ya nga xam ne sunu boroom dig na ko ci ay jaamam ñu bokk ci ñi nga xamante ni daañu góob yooyee meññenteef fi afiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu